Donc, Maïtoudou je suis née à Rufisque, j'ai grandi à Rufisque, j'ai eu mon baccalauréat au lycée de Moro, donc Dem Fac Médecine en 2005. Euh, j'ai eu mon doctorat en médecine en 2014. Euh, 2015, fait, j'ai commencé mes activités purement médicales qui privé Donc, euh, c'est en ce moment après cette une clinique, la clinique Khalifa Ababakarsi. Donc, euh, depuis lors, euh, on est dans ce domaine médical bi. En plus de ça, que au niveau côté politique tu, tu PUR, mon seul et unique parti ma sa ci côté politique donc PUR mooy une partie carrément politique donc actuellement responsable national des élus de PUR muy benn présentation vous, bu par rapport à moi. comme ça comme ni nga wax rek mu doon le bref en fait PUR ku ko xam-xam ne parti bu organisé la PUR ku ko xam-xam ne parti la bo xam ne ni en fait lepp lu ñuy def dañ koy def si étude organisé ko donc boo xolé ci parti yu bari peut-être foofu rek ngay gis responsable national des élus donc responsable national des élus lan la exact on a des élus qui sont ni ci presque plus de plus de 900 élus on a des élus yo xamné députés, muy député donc que ça soit les maires les conseils municipaux ak les députés donc nous ñoy la conférence des élus donc conférence bobu l'ensemble des élus du PUR dafa une belle conférence bo xamné fa lañ ñu tënk mooy la conférence des élus conférence des élus bobu nak moom la ñuy wax que ne am tout le temps benn responsable donc responsable boobu loolu laa responsable la conférence des élus. Donc, c'est ça en fait euh, man ak sama commune lu Yen, lu le donc comme j'ai l'habitude de le dire euh, commune du je suis née mon père par exemple mon c'est dans le chef du village au niveau de Yen Tordou. et j'ai l'habitude de le dire étant tout petit enfant quand je l'ai perdu un an après et c'est l'homme ma marqué la Je devais dañuy dem le voyage je dugg et il faisait nuit comme c'était des voitures je dañ depuis que euh, le chef du village génn àdduna ba léegi yéen todd fay dugg dafa lëndam donc man loolu noonu peut-être tout au plus bu ma amee ay vingt et ans si la yem mais mu marqué ma donc je me suis dit que au moins moi mon père a fait quelque chose à yéen ba tay ji un an deux ans après décès nit ñi di wax ne c'est parce que new fi moo tax tey ale yoon todd bi yëpp lëndam donc man am naa loo je dois le faire pour la pour sama commune je dois le faire pour sama village natal donc yooyu je na ci pas motivé en plus qui connaît mon père sait que toute sa vie il l'a donné pour commune d'ailleurs. donc man tam je me suis dit je, je en fait nit du yokk pour ce donc euh, pour commune de je pense qu'il je pense des gens. comme j'ai l'habitude de dire nit ne suis ko jàppale loolu donc depuis bien avant même ça, moi, surtout sama doctorat en médecine commencé à demander à mes amis yi nga c'est des médecins c'est des infirmiers c'est des sages-femmes jël leen en caravane jël leen en équipe ñu ñëw De def les consultations gratuites des dépistages que ça soit les dépistage cancer du col de l'utérus et euh, circoncision tout ça donc on le faisait du codef avec une commune du codef gratuitement parce que ku xam commune yi yéen xam des problèmes ou santé problème bu am doy war la donc lolo, je pense que ba léegi nii maa koy def au niveau de Yen ak sama commune Benen bi aussi mooy que ne fi may tant que je peux aider sama waa commune maa ngi koy euh, bi en 2019-2020, demain jour comme je suis vraiment ci côté côté social côté éducation parce que damay wax ni man ñaar daf ma neex santé daf ma neex éducation daf ma neex

ba seen dënn di tooy xale yi di jàng français muy école boo xam ne tout le temps yaa ngi gis en trente e cent pour cent yi cent pour cent et je me suis inspirée sama kilifa loolu mu def teg yéen première école privée ñu koy woowee les cours privés Serigne Babacar Sy mu am initiation en anglais en même temps di def ay cours coranique yu am solo donc loolu école boobu noonu boo xam ne nii dafay def anglais ak arabe euh, man maa nekk première personne boo xam ne nii au niveau de Yène ba pare leen ko à des prix vraiment social donc euh, ba moo tax ma ne man ak sama waa commune ñun la daal on est on est vraiment des amis on est ensemble. En fait l'effet que ça m'a fait mooy que ne taxawaay beneen jot tëb beneen jot la parce que am na loo xam ne buñ la ko tegee boo yaakaaree ni dafa neex rek xamoo li lay xaar taxawaay la laaj détermination la laaj beneen engagement la laaj bu ma déggee neex na ma ne boobu daax en fait du boog man li ne sama bopp yëpp na moo may xaar mënta ànd ak neex donc man noonu laa gisee ça veut dire beneen taxawaay laa war a def ça veut dire tey jii lu ma ne sonn naa ko benn pour leen pour benn affaire tey war naa ci sonn dix war naa ci sonn vingt wala war naa sonn ba mille donc pour man investiture bii nii de pour neex na docteur honorable la déedéet c'est pour toute une population boo xam ne dañ ne la tu dois les représenter dignement tu dois les défendre dignement sans parti prise donc du lu yomb te du lu oyof Khalifa kuy wax PUR dafa génn ci coalition sàmm sa kàddu mooy xamoo PUR coalition tey bu tuddee sàmm sa kàddu PUR moo tax coalition tey bu taxawee pur tax parce que pur li may ne xaw ma dara mais suñu président du parti le président bi gën a constant parmi les hommes politiques de ce pays et au-delà dara mosu Konyor, dara dara mosu Konyor, lenn rek moo

terrain bi di liggéey suñu maam Cheikh nag moo ñu am na ñu jàngaloon que ne ki nga xam ne ñëpp a xaar day liggéey mënuñu fu ñu tourné di la gis donc ñun li ñu xam ñu nga xam ne mooy suñu principe ci politique mooy être proche suñu base ñu ngi suñu base ñu ngi xool yeneen base ñu ngi jéem a xool suñu travail de terrain comme niñ ko tàmmee def mais le pur et bel et bien ba tey te incha allah comme li ma tàmm di wax suñu kilifa moom yow yaay dem yow yaay xëy dem waaye moom moom macha

nit ñi voté nañ massivement avec benn pourcentage bu bien jox leen pouvoir bi six mois yi nag wala sept mois yi sénégalais bu nekk gis nga li nga dund sénégalais bu nekk xam nga fi situation dëkk bi toll donc man je me dis que gis nga pur du ay affaire bu par parloo pur population bi moo ko ñor donc man ce que je dis moy ken ni opposition bi actuellement dafa war a am majorité à l'assemblée mais pas une opposition pour opposer ça veut dire buñ ne dañu wara jënd lii si askan bi mu baax si askan bi sax ñu dañuy opposé wu non et je pense que du man du ken ci pur ko xamné ne ngay gisee ça veut dire tay man pour man lan mo tax opposition bi wara am ben majorité bi mooy que tay bu fekkee né ñi nga xamné ñoo nekk au pouvoir dañ tek ñu ne lii ak li ak li lañ bëgg ci population que opposition xol bu fekkee né li ñu wax ni lu baax la population bi ñu ñëw tàccu leen na leen li ngeen wax baax na ñu ñëpp ñu voté ko mu jàll bu fekkee li ñu wax baaxu ñu leen carrément li ngeen wax dara baaxu si duñ ko voté parce que dañuy seetlu que ne Sénégal nit ñi bu ñu demee ba assemblée bu la pouvoir jëlee teg la assemblée li pouvoir bi wax rek ngay def doo réfléchir est-ce que baax na est-ce que baaxul mais yow sa poste ngay sàmm sa place ngay sàmm alors que sa poste boobu ak sa place boobu pourtant sénégalais yi ñoo la votel pourtant sénégalais yi ñoo sonn ba teg la fa pourtant ñaata élection ñaata nit ngay dégg kii daanu na fii kii damm na fii ki gaañu na fi donc ñooñu ñëpp ñoo jël seen ñàkk ak seen coono teg la ensemble ñu teg la fa nag yow nga war a défendre population bu nga ne déedéet man teg lootuma leen défendre tuma leen nag ma waa nguur gi ñoo ànd nguur gi li ñu wax rek naa du ma réfléchir du ma lire texte man pour man assemblée bii ñu war am assemblée beneen la boo xam ne que ça soit les gens du pouvoir que ce soit les gens de l' dañu war a dem ak seen xel bàyyi waxu sama président nee na ma lii laay def non dañu war dem ak suñu xel xool li nga xam ne moo gën ci population bi ñu def mais pas parce que nguur a ma fi teg lu nguur bind indi ko dañ koy dañ koy voté assemblée non pour man ça se dépasse. xalifa euh, je pense que bi may commencé si sama ay début mo wax naa la ko nee la ñun ay nut terrain la ñun dafa am fo xamné fa lañu jangal fa lañu ñuy fa lañu nek mo on est proche de la population. te am lenn lo xamné ne bëggé ko liggéey. ba paré chaque jour nga nekkaat di justifier wu andul donc nak équipe lool mo tax yalla di wax nit ñi di bolo parce que man ak yow bu ñu nduro won lepp jaru ñuy ànd. mais lool moy force coalition sama sa kàddu. tay force coalition sama sa kàddu moy que ne am nañ parti pur bo xamné mu ngi ci base bi di liggéey di liggéey liggéey bu de di wote am qui est la présence immédiate de défendre di wax donc loolu mooy charme coalition bi kenn ku nekk yaa def sa ay tâche te kenn et diversité ñu moy doon surprise le 17 novembre. au fait ange bi pur am mooy que ne am nga le président du parti dafa am lu solo mu ne joxe na rendez-vous le 17 novembre donc déjà bo ben ange la benen bi aussi comme li ma la ko waxee gis nga pur sàmm sa cadeau la xam nga sàmm sa cadeau ñu and sàmmoo sa cadeau ñun ñu wala la la yow mi sàmmoo sa cadeau da nga wara a sa cadeau gis nga y a des choses parfois tu le fais à la personne mu yaakaar ne dang ko bañ fekk bañoo ko da koy corriger te ki ngay corriger parce que yéene nga ko jàmm sauf ko wul won jàmm donc boko ko donc pur rupture pour ne ñi ñoo nekk au pouvoir tay ñi nekk au pouvoir tay dañuy ñëw pour non non dañ nekk di leen corriger. donc loolu moo tax ñu lay waxu sàmm sa kàddu parce que ku dégg contexte politique fu mu ak li fi ci ay dégg sa xam na ñu wax sa mm-hmm. Mm-hmm. même même même titre am c'est pour le corriger donc turu sàmm sa kàddu c'est pour donner une correction daf ñi ngay corriger nag dégg nañ ko waaw wala dégg buñ ko déggulee ci ci tur bi rek le 17 novembre ñu dégg donc boobu Ben enjeu la boo xam donc beneen bi aussi mooy que ne il faut que ñu am benn nombre député boo xam dina permettre parce que bu ñu waxee nag ba mu jeex Fini ñi fi gersu askan bi nekk ci constance askan nekk ci constance askan bi rek pur donc pur mu nombre assemblée dina défendre activement population donc ñun pur comme ni xam nga la population Nous la population bi ñu leneen suñu ay suñu ay nous amul solo suñu ay titre amul solo li am solo rek population sénégalaise parce que tamit am